dal leen ak jàmm ñu xëy taxañ yéene kaay xëyndoo daanaka nag ñoom ñëpp benn mbir la ñu xëyte mooy ndamal Bassirou Diomaye Faye naka ci élection présidentielle yu réewum Sénégal yoor yoor yéene kaay xëy na yooru naka dinu àddu nee pour cent boo xamante ni Bassirou am na ko maanaam ndamal premier tour boo xamante ni Bassirou Diomaye Faye boobee am moo fas yéene doon cinquième président juróomeelu président de la République bu Sénégal yéene kaay bi ne naka boobee jamono ñi nga xamante ni ci ñoo ànd ak Amadou Ba ñoo ngay xultum ñoo ngay njort ne fi ñu mbir mi mun naa dem deuxième tour xanaa kooku day gént Walf Quotidien di ko feelu victoire au premier tour yi amoon nag niki démb Diomaye Faye la surprise du chef surprise dëgg nag moo dal lalu ndax Diomaye Faye nag ci candidat yi moom moom dal dee buubu nag moo dal dee loolee nga xamante moo di élection yi yéenekaay bi di témoin di témoigné nee na Bassirou Diomaye Faye nag nouveau président de la république nee booy xool nag téeméer boo jël daanaka 54 pour cent yoo xamante ni si suffrage yi moo ko dal dee gagné contre 34 pour cent kii adversaire bi mu jàkkaarloog di Amadou Ba ay félicitations yu bëri naka tukkee ci Karim Wade naka ci ki nga xamante ni si moo di chef d'état bu bees bi di Bassirou Diomaye Faye Bassirou Diomaye Faye le plébiscité nag yéene bi l'observateur moo xëy waxee noonu moo ngay xëy naka di càmbar tendance yi nga xamante ni si diis Touba diaspora présidence ñoom ñëpp nag daanaka nañu voté naka bu gañal Amadou Ba bu gañal Bassirou Diomaye Faye moo bari lool yéene kaa bi ne Idi Khalifa Sall gàkku la triste fin des mois ka yéene kaa bi ne ñoom naka seenu ëllëg si wàllum politique jeex na tàkk jeex na tàkk ni ki tey ji naka Sénégal daanaka xam nañu seen juróomeelu président te mooy Bassirou Diomaye Faye cinquième président de la République yéene kaa bi ne tendance yu bees yi dal na koy fësal benno conteste naka victoire bu Diomaye bu Bassirou Diomaye Faye ne premier tour ne lu nekk munta nekk xanaa dañuy léeb Amadou Ba moom fi mu toll nii remonté na promet naka annoncé ak ni ki tey ji naka plus tard ngir àddu addu ci mbir moomee ay kandaay bëri yoo si nangu nañ seenu defet bu noppi di félicité Bassirou Diomaye Faye razzia dëgg la def si Dakar ñu ne déetawaay Diourbel Mbàkke Thiès sa jiwaan si coor bi ñoo na ba ca usuy naka Bassirou Diomaye Faye buub na ko ba mu jeex tàkk apport déterminant bu PDS ak Abdoulaye Sylla naka si yéene kaay bi ne victoire boobee nga xamante ni si Bassirou Diomaye am na ko Karim Wade moo ngay jibile di revendiquer

ni du mën a élection yi nag ni ki démb Diomaye Faye mooy président yéenekaay bi de bés jour moo ko xëy fësal nag le plan Sonko bi nga xamante moom lañ teg bu daal dee gagné idi ak li nga xamante si moo di ay ñoom Khalifa Sall seen retraite ñor na ci wàllum politique ndax ci élection yi amuñu ca dara yéenekaay bi ne nag Diomaye loin devant jiitu na gaay ca kanam sànni karawaas ndax Diomaye Faye boobee lala nañ ko tapis rouge nag am ci boobee jamono le soleil yéene kaay ne fi amal nañ vote boo leer na nañ ci transparence rek lañ ko dal dee amal li des nag dañ ko bàyyi ci ko ñi ko yaayoo ñu dal dee joxe résultat yi mujj nag ci boobee élection ñu xam véritablement kan moo gagné gagné kay ma yaakaar ne xam ngeen ko yéene kaay bi ne enquête xëy bu leer na razzia naka buub dëgg naka bale nag la joomaay fay def ni ki démb ndax baalul gaay dara nag lépp la dal dee buub doon yóbbu naka fi mu doon yi ba dal dee li ci loxoom naka uutali pale pale boobee naka moo nekk en tête tête boobee naka moom dal na koy téye moom joomaay fay nag fi mu doon la ñëpp doon yaakaar naka amul nag moom joomaay fay moomee naa gañe bu leer nañ nag la ko yéene kaay bi xëy fësale ndax lañ doon séntu nag ci àllum résultat naka ci baax ci moom la dal dee fësee ndam laa ngoog ñoo ko déggandoo Bassirou Diomaye Faye cinquième président ñoo ko déggandoo ba ëllëg